ngir gunge leen ci seen bëgg-bëgg digital store indil na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mujj génne te xew ci jamono tablette Core T4 smartphone Core X4 ak téléphone flottant Shark X3 di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yii ñuy ànd ak yéen fu ne ngeen di ci liggéey lu leen neex mel ni ko toog seen bureau Core T4 Encore X4 ak Shark x ak ñoo dëgër te méngoo jamono te dañ leen a mandargale ci norme militaire bii di IP68 boole ci lu ñu ànd ak alarme bu leen di aar Crosscall di kër gi leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil am ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo ak ñun ci suñu boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la Corniche 33 823 77 87 Digital Store, améliorez votre quotidien. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi wa ridwaani wa tamkin alquran la dafa am nu mu santaane fa ida qudiyat salaatu fantashiru fi l ardi wabtagu min fadlillah kon ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Moustapha ibnu Cheikh Abdoul Ahad Mbacke mi nga xam ne. <laughs> moo fi teewal Serigne Sidi Mbacke mi nga xam ne. <laughs> Serigne Cheikh mu Cheikh Saliou Mbacke. <laughs> bi liggéey bi àggee dafa jëlaat lépp tegaat ko ci loxol Serigne Sidi na mu ko defee woon rek ca yàqee nguur ngir xam ne mooy kilifaam ci biir yoon Serigne Sidi yónnee waat ci Cheikh Mouhamadou Mountakha yëgalaat ko ko mu door ak ci jitaay loolu ci ndigalu sëñ Moustapha ñi nga xam ne moo ko fi bu baax mboolem njabootu Serigne Touba yëpp ko ci Serigne Moustapha Mbacke mu Cheikh bi nga xam ne moom bi yabaloon mu jiite jumaa ji muy loo xam ne nekkul li ñuy loolu loolu rek ndax ko xam diggam ak sëriñ Saliou wax ndax bokk na ci ñi sëriñ bi mujj wax mhm. mu jege woon ko fonk ko lool daa ko seereel kàddu yi ne bu ma la gisee damay fàttali sama ndaw kon lii bu sax daa jógee waaye ñu ngi defante lu war a mën a fam ne xolam sedd na ndax loolu la war a ko na ko ci nit kon bu ko sëriñ si Mbacke ak loolu la wàccee ci ndigalu Cheikh Mawal mu taxaat mu jiite waat fii loolu nag dafa mel topp seen i jeexit ñu ngi siyaare itam Cheikh Mawal Bachir Mbacke Serigne Saliou bi xam ne moo fi teew ci wàkkee Serigne ak mboolem ak yëpp. di mhm. Serigne Abdou Khadim Mbacke ak Cheikh Mouhamadou Mourtada ak mboolem taalib bi teew kon kàddu yi du gudd ci ndigalu Serigne Mourtada rek mhm. mooy di sant ñi fi teew ñëpp ci li nga xam ne dañ ko ñu ko alquran santaane ne istajibu lillahi wa li rasuli iza daakum lima yuhyikum lii nag dundal yàlla la kon ba ko Serigne Saliou Mbacke naale moo doonoon lu ko itteel ndax ba nga xam ne ne fii ab quartier bu fonkoon mu doonoon itteem loolu itam yàlla def mu dénkoon ko taalibeem ba Serigne ko ba mu bu mu àggee itam yàlla defal na ko ci taw bi nga xam ne dañu ne seeral ci sama sëriñ Cheikh. Mhm. ndax koy jébbal sëriñ Cheikh ak bi fi bi motul weer wala ñett ay gis kon loolu mel na ne seeral nañu ko sëriñ Cheikh. Mhm. moom nag dafa amoon dimbal ci sëriñ bi lu mu nga sëriñ Cheikh boo ko yor. Mhm. kon lii itam firnde la ci ñëpp ci turu di ñaan képp ku fi teew suñu doon jéggi na seen bàkkaar aajo bi waaye daal di yàlla yàlla faj képp koo xam ne aajo bi fii tey tam yàlla nag suñu borom fay si fàtte si ñu ba wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh tubaarkalla kon nag ñu tàll sëñ Moussa nga ñaan sëñ Moussa am Cheikh Abdou Khadir ne nga ñaan yaay seen mag ñaan bu baax kii fi wut Cheikh Béthio yàlla mu yàgg lool te wér te yàgg liggéeyal sëriñ bi muy sëriñ Saliou Thioune ak rakam yépp